yéen a ngi dégg andu ba léegi am nañ seen yaram tàng ba léegi coow bi diggante wa andu c'est très tendu même na ay jàppante mooy sunu noon Ousmane Sonko du sunu noon ñun Sonko lañ nañ topp Ousmane Sonko moo tax ñu bàyyi suñu kenn wax lu ñaaw kenn musu koo dégg mu Ousmane Sonko lu ñaaw waaye ñoom fu ñu dajee ñoom ñu ñuy yuuxoo ak ñu ñu saaga tey duñ ko accepté ñoom war nañu xoolal seen bopp xam ne ñun ñoo bokk combat bi xam mooy Macky Sall fi nekk rek bu ñu amee benn combat boo xam ne benn objectif la ñoom mooy jëlee fi Macky Sall ñoom ñu yuuxoo di yàq mbir yi lenn nag laa la wax kii moo kii la expérience li ñuy def ak lu ñuy wax bokkul ñi ay doomaraam lañ. non mool. waaye yéen yéen yéen foog ñu waay waay pour saaga manipulation ay fen ay yu kenn xamul. réew mi buñ koy jox dañ koy jox koo xam ni mata na ko wóor na te yaakaar bu soobee suñu borom cinquième président incha allah rabbi. nañu arrêté. waa Sonko yi nañu yaru. gis nga dëkk boo yarul doo ko mën a yare. yarawul gis nga Sonko yarawul tey yarawul ëllëg ñu ngi ànd ak moom yarawul tey yarawul ñu ëllëg yaa ngi may dégg ñun mënuñu saa yu mbéy ak ñu ñuy xas ñu saaga mënul nekk ñu dañ ñoo yar sànq ba tey ñu ngi wax lu leen neex ñu ngi wax lu leen neex ñuy daw di rafetal ndax ñun suñu leader xamal loolu la xam mais sëgg dama dafa dañ rafetal ñun ragaluñu leen de ñun ragaluñu tey ragaluñu ëllëg bu ñu bëgg ñu def ko ñu def ko ak ñoom ñoom ñooñu moom xam nga amuñu jàmm dañuy bañ ñu régler rek ñu ànd ak ñoom mënuñu régler rek ñu dem ak ñoom fi ñu bëgg dem waaw ñun xal la ñu gëm dañu gëm tey moom la ñu gëm ëllëg te dinañ ñam kan da doon xeex waaw xaañu ñu ko de doon xeex rek xaw ma waaw. problème bi au fond mooy que waa Pastef. Oh, boo ko yéen déggoon naa mënta ne mooy que seen leader dong. kese moom kese moom dégg ay waxtaanam. ku nekk da nga am sa uh, ngi dégg baax na. filmeetu ñu ngi dem. filmeetu ñu ngi dem. ñu respecté fii li ñu fi indi tey mooy terrain un peu hostile ñu avancé xool Macky Sall jóge fi ñoo bokk benn xeex bi xeex bi nag bu ñu ko bëggee de mooy ku nekk day respecté leaderam mënoo taxaw ni nit ki tay tay nga bëgg lii pour lan waa Sonko ñoom nañ lay wax ni bula politique lañ ay bula politique lañ ñun dañoo yàgg ci xeex bi xam lay politique Khalifa Sall 24 ans d'opposition la def kenn mosu koo vaar kon nag nañu yem nañu yem fii loo fi wax nit am na lu ñu leen wax biir la